kadi daal moo bëri kadi saf sell te wóor Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. ginnaaw bëccëgu koor dara dàqul waxtu bi ma war a bokk ak sama yaourt Yelitare bi ci guumeew bu neex bi ub Yelitare moo leen di ñaanal kooru jàmm pour yini wadjal wero kor koor gu sell gi am nañu ay thermos ay ser 2HP Grand Bazar dal du hasard. teraanga ak ponche la fekk bax seetaan sen programme ak boisson ponche yi di teral gan ak di seetal xol ak ponche rek fi la fekk bax au royal bour ndox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 alhamdulilah rabil alamin jërë ngeen jëf alhamdulilah bam bi looy jooy madame Thiam félicitation yàlla sëy bi barkeel yàlla si yàlla wasal barkeel boole ci mini mini madame Thiam señor ngi nii toog yi nga jéem a maîtriser de li mu si guddi nga jël sa yi di sama kanam su ma la taakale woon fii sa carrière yaaxu ñu mambate ma naan ma booy bi nii booy bi naa baax na yow sax yow yow sa góor leen mu jeex parce que néeg bi danga koy génne abal ma maa ngi wax faale woo ma da ngay mbéppi mbéppi ni nduroog béy bu rëcc ma ni suba dañ may may fifi incha allah su ma ngéntee ba pare dañ ma koy may mu leew ma doom te je serai homme marié damay soxle sama intimité maanaam néeg bi nga génn nag abal ma parce que saay ma maa la gën a lew fa yàlla maa la gën a légal ya liir buy door a juddu yéen a yem rek dag may abal néeg bi yaay xool nag waañ bi war a mbaaru xar bi foo ci dem baax na konte dañoo ne la takal tata bambi nga bañ bambi bambi tur bu neex mo ngi noonu bambi waay seet leen yàlla ci seen néeg bi néeg bi xeeñ na ah, waay i xasaw na torop bi te ba ah, ah. seet leen yàlla ci li ngeen def nabu au moins booy ñëw ngeen daal cuuraay def ko ci néeg bi mu xeeñ neex ay ma sama jàmm ay balu mag ak xale moom munoo koo cuuraay lu mag a gën a bon surtout mag bu aase loolu lu ko nit di cuuraay ah di dóor rek muy dem ngeen seet yàlla ci li ngeen di def ah, boo nekkee aj rido bi waaye tur bi waxuma ci dara ba tey di xam naa ni sax nag mën ko koy tuddee waaye dangaa bandi xam naa sa jikko Mapurna ya, yang mejuh ide ha. Ye. Turbi nga bëgg. wah yow kini nit la. Waaye yow kan, nit nga nga may ide. Tur bi laa bëgg kay xam nga ne moo ngénte lu du yomb nag ngénte fiston. loolu benen bir la. Ok mais à une seule condition. Mbarma ma na du sama mood quoi. sax damaa soxla concentration ak sama bébé ak sama famille fexeel ma génn fa place bi instant yoroon fexeel ma occupé ko boo matalee loolu yaa moom tur bi. loolu rek. kase. <laughs> loolu doy wax loolu xam nga ne léegi léegi ma géré ko. woo sa baay xaaral rek loolu amul problème. Bakir Thiam waa waa je te rappelle papa dégg naa dëkk bi yëpp war nga ko naan da xew damaa bëgg nag foo jaaroon na fa toppaat. Ah. ëtt bii amul xew laa la wax. Ah. ci tudd lay yem. wala eh, eh eh Papa Ndiouga yow ñu ne la séeréer bi mooy mooy mooy mooy joolaa bi nga bëgg xaabaabal nag Papa Ndiouga. père soxla woon naa la ah. Papa Ndiouga tontu waaye lii tamit neex na nag.

dëgër sa xarit lan la yow leer na la ni ma lay gis ngay dund si ay nakar ak tiis du doon lu ma neex dama bëgg nga wax ak man lan la cest dinaa mën a continuer ne continuer lan mu bi mënuma ko. Eh, bul nangu xalaat yu ñaaw di lu yóbbaale loolu yëpp ay xalaatu seytaane la rek bul ko topp. noppil man maa ngi sawet maa ngi yow ñoo ko sekk duma la mës a bàyyi yow leer na leen lu ma am sama àdduna am sa doom moo ma ko gënal kon bii ngay wax yëpp jarul nga ci sori bàyyil wax boobu dégg yow ki la am pour yaay moo am sens mais pas yow bébé bi nga xamante ni moo nar a am Jojo Mbow doon yaayam kooku moo am sens Jojo Mbow say caprice du ma si musa a jugé li nga doon dëgg mi ngi sa biir xol te xol bu rafet nga yor macha allah yéenoo kenn lu bon jigéen bu baax nga. merci mu mujjee ak awa Cheikh ànd naa fa góor gi ñaar yoon gisuma ko xam naa daf may daw dinaa fa demaat incha allah. te c'est-à-dire rek loo jotee ak awa nit koo xam ne dóor nga ko def nga ko lu nekk demul. kon li ko dem demloo nii du lu ndaw wax dëgg yàlla xaw xamul tax mu dem te même bu ma ko xamoon duma la ko wax parce que man ak moom la mi ngi mel ni rek li may dund ak yow jamono ji ma dem di ko wax te loolu yoonam nekku si dama bëgg nga wàcc nga saafonte ak nit ñi bokk si organisation ngénte li nga bàyyi sa wéetaay bi nga daw tudd néeg bi. sama xol neexul. joojo jigéen dina am lu ko metti trop këram jaxasoo du tee mu génn wax ak nit ñi bul musa nangu di daw ñi ñi ndax sa xol neexul nit ñi ñooy say garab loolu laa bëgg nga def ko. xaaral soo yére dem gis maa bébé yaa ngi nekk qui di stressé pour rien. comment ça pour rien aw ah cher ça fait deux jours dégguma ko. mais c'est normal mi ngi kër yaayam su ko leneen aussi ñun nañ ko yëg. bé aw ah cher xam naa ko te su ma toogee dégguma ça veut dire que mon ngi dund lu metti. peut-être mi ngi si boppam attention faut pour le diable. Oui, ma ils nga hier les numéros bëree yaay ni ñu lem ko.

en plus keroog waxu droit de la nuit rek ngeen ma wax waxoo leen ma dara ci droit du jour. Ibnou loo la woon. contact agence Cypress. ok. merci. léegi looy de la waa Cypress.

bébé wuy ma. du ma gunge marché après. lu war a dawalante li ngay tayal yëpp. xaaral ma waaj Ibnu Ibnu. ban heure la moom sa ceeb mënatoo ko te xam naa ni tey tamit même chose nga ñuy defar ah bam waaye dinaa namm sa loxo de. yii xeetu ceeb yooyu naa ndakaaru nag kon de bi yeboo tàmbali koo miis dañuy ñibbi suba sa dix won na ma jël nañu ñaari billet bu subaa ca ngoon dañuy gont ah Bambi heureusement sax di ngay fekke ngénte li comme danga ko bëggoon fekke mu ngoonee rek ngeen daal di gont dem incha allah. yow moom dangay foye sa xelu taaw mi man moom a feebar mis daqaar yëg bëccaan mi moom di ko xaw a kii bambi bambi bambi lan la bul triste yow tam bu la ibnu takkul rekk keneen dina la takk te kiy ñëw sax nag bër bu dul bëri la jëkkër ju bax la la sunu borom di may. Iya, yo iya, da nga bax rek te yene ma. bam bi nga ba pare tek nga ma place yaay defal nga ma lo xamanteni ni Leyla Thiam mii sama dom duma ko defal Fat Bintu njay mi sama gor duma ko defal bax nga yaru nga teey nga dal nga te it nga ben place. yaay Leyla xale la. teg si ba muy dem France xale la liberté rekk la am faa nag ah yàlla baax na. ah loo bëgg a wax foofu. bëgguma wax dara de bëgguma wax lu ma wóorul ñu ne baam bi waxati na. baam bi su fekkee ne dafa am loo xam danga ma koy wax ba mu leer bu ko defee ma mën koo lijjanti. ku ma sikkal laay bañ. te damaa weex donc nanguwuma koo peinture. Bambi wax ma lan moo am walla lu xew. keroog damaa fort ci sa waxtaan ak Xalil bi ngeen di wax waxu doom mu fàttali ma ma tasee ak ñoom ca hôpital ba mhm. waaye yaay. Bambi waxal wax ji mu leer sama nopp. dafa mel ni xel li nëbbal jabaram de faa am problème Fat Bintou moo mënul am doom astaxfirullah ci li ma foog bokk kon daan dangaa bëgg a wax ni Khalil Thiam xam na ni Fat Bintou dafa jaasiir mu daal di ciy toog ne pat bañ ma koo wax waxuma dara de situation bee ko wone baam bi mës wax. turki jaam waaye xalil caam de xaw ma kan la yeb waaye man mii yebu ma te lool dinaa ko lijjanti ba mu leer nañ teg ko ci sama loxo. dem moom dinaa ko def moom a gënal fuuf sëy ak ibnu caam waaye balaa maa dem dinaa leen ruube kenn ku ci nekk ci yéen ba kenn du sigg xool moroomam bëgg naa ñu danga doon woo sa yaay moom tamit dem na bàyyi ma ma la déggati nga wax loolu Bousso

Ano mau ako telefono? So, triste na nga baga esa ham ko, dila gis nga joy. Hindi, hindi. Lolo mo ta, mo ta mo bugul ngeen gis sam. Mais sa yu retrouvé wo rek pa nekkat, dina gis dafay xool li nga xamante ni moom moo noppal doomam mu di ko def loolu moo tax sa yaay doxalee ni mu doxalee nii te xoolal bàyyi sa triste bi ak sa jooyee man mi sa yàmmee wàllu tristesse noppi dégg nga na la ñuy def dangay ñëw ñu ànd marché man ak yow ñu dem dugg togg lu ñu neex parce que tey wàññi ko moom c'est bon.

samay tànk moo indi ci man. Madame dëkkuwaay moo la fi indi dama bëggoon xam sa bëgg-bëgg ak sa mën-mën ndax ma mën la jàppale si li ngay wut. ah d'accord vous connaissez mon jeune frère Khalil Diam oui monsieur Diam, effectivement. c'est lui qui m'a conseillé de venir vous voir car damay takk soxna une femme magnifique beauté ébène lépp tolloo Manina nii ñëw effectivement aussi ay renseignements ci seen appartement yi ngeen di car Ibnou dafay takk soxna bu baax ñu di ci ëtt bi vous savez en amour kenn warul fàttali premier cadeau cicatrice pour nice lay ci ki jox et j'aime Bambi quand il s'agit d'elle oh je l'aime je suis très contente pour vous félicitations merci euh, déjà faut savoir que la cypresse est là depuis plus de 30 ans on commercialise euh, des appartements, des villas, des parcelles viabilisées, des commerces et bureaux. D'ailleurs, euh, Monsieur votre frère, appartement Bimou choisir mon si programme de quatrième arrondissement Nous sommes à proximité de la Maison des Nations Unies et euh, en termes de commodité, vous êtes vraiment bien servi. Vous avez aux alentours un complexe sportif et vous avez un hôtel 5 étoiles. Les au sein de la résidence il tamit euh, ay commodité yu def que euh, client bi du soxla y donc di fitness center di nga am shop di nga multisport di piscine pour adultes de petits bassins pour les plus petits amna ay parking souterrain donc vraiment il y a tout pour que le client se sente à l'aise ñu nga may ma rek kii may ki koy yar awa si mi xamu mu xamadi rek déet kóori du noonu nit daa am yëg-yëg awa su paree dina wax bu ko forcé Sadikh Khalil ñu dem awa si awa pen awa si tëjee buntu bi yow awa pen la ah eh, génnal li ci biti génnal génnal génnal yow Awa Seck lan mooy yow Awa yow sa nijaay ñëw fi ànd sa jëkkër nga ne ci biir néeg bi mooy fëgg nga ne patt mel ni ku ma déggul Awa dangaa muuma Awa Pène eh xale bu jigéen sëyil laa ci moom sëy laa mu sa sant yow yaa ngi may dégg bu baax man sëy laa mu sa sant gis nga kër gi doo fi toog est-ce que yaa ngi may dégg bu baax boo yow boo sëyul nooy def Awa boo sëyul lan ngay def dangaa bëgg a def taxawaalu ji tambaambaalu nekk caga du fii ci biir kër gi bu ma ne ay yaay bu mané ay yaay yow jull la sax erreur la amaloma ma benn njëriñ ci ko pour so passo ah li nga sa kër ge dama bëgg nga tok fa so fa amé lo neex nga muñ ko so fa amé lo nakari nga muñ ko fa ya ngay dégg ba ndax sey rek la la sant bala ma dégg nga sama sunu fajar gi nga ne man ngay tong aw eh, man ngay tong man sa ndey fi do fi tok fi do fi tok man duma ma fat ciaga su ma ngi ñëw di la jox xaaj suba ngoon ma tok ci kër gi du la ma a déranger aw saya yow mënoo bàyyi waxi xaalis yow mënoo bàyyi waxi xaalis yow amoo xaalis moo tax xamoo xaalis gis nga soo amul xaalis mënoo xam valeur xaalis baal waxi xaalis laa wax yaa ngi may dégg baax. eh baax na dangaa bëgg ma dellu kër papa Ndiouga dinaa fa dem tey jii. nay léegi sa tànk sama tànk ba kër nay léegi ak nga fayda torop di wut di taxawaaloo ko tambaabaaloo li nga bëgg dafa tas sa see ñoo toog yow bu ñu la nee di nga tas sa sëy ñëw toog sama biir kër gi bi lay awse bu ñu la ko xes war nga koo waroo koo gëm de man Coura Thiam dinaa fat doom ji yàq nga ko waaye tout sa jëkkër laa nga toog fa dellu sa biir kër nga toog fa nga am lu la neex nga ko fa nga am fa lu la naqari nga muñ ko fa gis nga man sa ndey laa xam xam nga lu ma xam ci sëy sëy ba suul sa jëkkër wala nga toog tëj sa jëkkër loolu rek laa xam wala ñu suul la yow duna bere kalali fine ya la mala baglo cho fer bi ma am chi ya su yo kun du anye ku hala tu ma ju dunya nelo ye wona khar chi e dag sori na yow comprendre ma kañ nga fi am temps wu def fi li man je comprends pas en fait nan nga def ba li ni yëpp depuis combien de temps quand. viens je te fais visiter après naa l'expliquer. mais mais man damay gént wala. yaay. weddi suñu kàddu ba tax dis na suñu kaw dootuñu gina ginnaaw. diggante bi ku ci wax di nga ci des ak lu mën ti

yi pour ci de pour am pas parce que je t'aime defuma aussi pas pour que lu la certes la mais dama parce que c'est mon devoir sama ma li nga te kanam ma def Je crèche

instant yi yàkkamti ma lu dul ñu ñibbi kër ga ma jàpp julli sant yàlla bi ma boolewee ak ku mel ni yow bu mu tegee ci sama yoon koo xamante ni nii dafay topp li nga xamante ni moo ma neex mu ciy wéy te di ko def xel man genre en fait yàlla deseelatuma dara je dirais parce que mënuma am lu la ëpp Mamoula. On est, on est fait pour être ensemble, pour s'épauler, Yapolante. Merci. Votre série revient après la pub. Kadi daal moo bëri doole. Kadi saf sell te wóor. Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Baïk, Jetour et Mahindra. Dinao gu koor dara dàqul waxtu bi ma war a bokk ak sama yaourt yelitaare bi ci guu meew bu neex bi ub yelitaare moo leen di ñaanal kooru ak ponche la baax seen programme ak boisson ponche yi di teral gan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 global textile Assane Fall Parcelles unité 12 tu es Sénélec ba gros demi gros. Matidi.com Retrouvez votre émission Je te surveille du lundi au vendredi sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2S TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Eh, lu poiton de te xoolal xoolal lii mooy poiton. wax naa ne Ndiaye dafa mën a nettali Ndiaye fu mu day wax. man du ma tooñ de. li nga nekkee di nga ci génn par force. signé nga combat bu dul bëri nag yow. bombal bombal bombal bombal. mok mok mok. Retrouvez votre série Made by Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Hey, eh, <laughs> papa waaw crèche bi kay lépp yemb na instant bi communication bu jaar yoon rek lañ bëgg. ah macha allah Faa nag efficace nga lii moom yàlla nga ko muurloo. amiin <laughs> waaye yow Faa xanaa soxla woo mag mooy ubbi xelu xale yi eh da ngay man maîtresse laa de man ak mën a joxe biberon ah di di léebal xale yi nag di leen def gili gili gili gili abakir ah, te nag changé course maa ci mën. yu mag yeeg yu xale yi nag <laughs> sama turandoo bi sooba yàlla mooy nekk sa première cliente incha allah. salaamaaleykum waa Babel. maaleykum salaam tey def. yow dinañ si jàmm bu baax. waaw Bakir. waaw na nga def. Khalil. Badiane. ana Sadi. Sadi dama naa si kaw. yow lu namel di jëriñ waaw Cheikh yow moom teel nga froissé di. awa Cheikh ya, naka nga def. ay maa ngi def alhamdulilah. dal na yak yow Cheikh ça va. Ya. awa Cheikh ya. jéggulu sa jëf ju bon di nga jëf sank laa bëgg nga jéggulu nagaam kii bu borom këram ñëwee dina ram tuubal ko man kuri cham sey rek la xam te jëkër sanga la. ah diggante naa dëgg way nga wax dëgg gu wër péng la jëkkër du morom sang la nak awa Cheikh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baje Badiane na ngeen def. waaw Ndiour bi waaw jàmm. waaw Seex. waaw léegi taxaw xanaa xalil wowo la kay toog. Baje naka coono yi. sant yàlla bu baax jàmm. Alhamdulillah. eh yow la ngay eh, xaar Ramal ñëw tuubal sa borom kër. Dank. anda ak dal awa seex rafetlu naa sa ñëw lool xam naa ni danga soxla woon temps waaye di nga ñibbisi li xew nag ba génn am ci xaw ma da ngeen koy waxtaane fii xaw ma da ngeen am solo mooy na ci déggoo tegu mhm. ndax bañ ak làmmiñ ñoo des fois ñu tassé waye kenn mënu leen tagalé sey ak jafé jafé waye waxtaan mënu caa ñak waaw. boobu jam da nga bax rek caam motax nga waxé ni nga waxé ak bëgg sa njabot bëgg a uuf sa njabot motax nga waxé ni aw say jëfam ju bon ji dama bëgg mu jóg ram tuubal borom kërëm man lool la bëgg. li ñu wara def ñom ñaar ku ci nek la nek sa xol na ko genné uh-huh. suñ ko défé après dinañ juboo ndax ñom yag nañu dencanté uh-huh. yag nañ papa ñu ba dama bëggoon ñaan baat la ilaha illallah man ku ni ci am naka mbab la jub aawase kori dégg lu mu wax andal ak dal ñaan baat awa seex naxar bu mu la tax a jël décision dégg nga li ma la wax waxtaan amul lu mu ya faj ak fu jafe-jafe mënti toll nag laa la wax awa seex nen na yaayam lu def noonu yow yaay ko partager wax nga ma nga ma awa xanaa boo xoolul ñiy toog nga xool sa njaboot gi te xam ne si yombut de lépp ay muñ la rek dara neexu ci. Hmm, c'est l'expert qui ah naa ne jafe-jafe joo mënti gis bànneex a cay tegu Awa Cheikh teggil sa tànk lu metti yàggul. papa naxaar ak mettit miin naa ko sama biir néegu sëy dafa fekk ni nag. wax daf ma waro rek suturaa ma war mais ñaar yoy taxuma ñaan baat papa ñaanuma baat contre sa def de dama ñaan baat pour man. yow tan ngay nopi awase babakar sa def ci ba bañu dalé sey ba légui suma la ñaan dara musuma la ñaan leen lu toll ni tarfatal ay ne tay moy bis bi ñëk te ñaanuma leen lu sama baat. déedéet déedéet bàyyi ko li muy def nii moom bu ko déglu man yow ba ma waaye yow dalal Sadi Thiam xoolal moom bu ma joxul cër maa ma bu ko déglu benn yoon kii damaa yaakaar ne xel mee dem dafa ñàkk ba joxe fa dof fum na nii Sadi bu ko mukk ci bëgg bëggam bu ko de waaw dalal awa Cheikh Pène may naa la sa baat. bañu ko da ngay daal yow bàyyi ma kii. say la ñaan baat awa Cheikh yow doog wax ndax yow àdduna ak Allah. sa jukko man mënu ko xam benn su doon doomu jàmbur

maintenant j'aime Bambi Ndiaye dama koy takk. kii lan lay wax ni bonne question Père Ndiouga maag moom duñ dëkk ci kër gi comme ni sama gars yi def pas de bokk ëtt sama jabar ak man bi ci topp mooy dama koy takk suba. lan Ibnu d'accord na pour takk la léegi. yaay loolu mënul nekk de. non non. hey mënu yaay maa bañ de loolu mënul nekk. Eh, lii de mooy tës nag lii de mooy la tubaab ba waxoon la vie est la vie les uns sa marient et les autres se séparent. Ah! Mon petit poussin, viens. Maa yow. Lan la, ici repose. yow defal nii nii da nga nekk ci problème. notre amour est sincère. yow bàyyi ma. ma ne nga taxaw yow rek

Yang giri hari mu fi bayi. Masa, masa sama kau. Hamadi umadama. ngay seet nit ku bon mo raw dem te yow nit ku bon nga man nga bëgg toroxal yalla toroxal na la yow sang ma man wër sutural ma yow yaay nit ku bon lo bëgg faq dedet ki do ci jot yow yaay yes nga melni ku jóge na ma fa nga jóge waye do fa delu yak nga bobu askan fi ngay tok bu subaa bëgg sëy bañ sëy fee ngay dee yaa bon dem tàngoo man yóbbal faw nga dem ma dem ma am jàmm ngir yàlla eh demal nga tëddi eh bàyyi bunt bi nga dem tëddi demal nga tëddi demal nga tëddi kii de ragal a tudd dama lay yuuxu sàccee de ay bandi yow toddeet ay sàcc ñu fi jàpp dañ lay dóor ba nga dee xamuñu la génn mu yéen sàcceey sàcceey bi nga doon sàcceey sàcc baa ngi sàcceey wayu bandi xaj ko ci mbaw mbaw tëddil yow yaa sonal àddina yow yaa ma sonal dëgg dëgg dëgg yaa ma sonal du ma tëddi de fii laay toog ba ba set ba ñu muur la ba nga dem ma am jàmm àdduna am jàmm sama mbokk yi am jàmm sama dëkk yi sax dama leen a solo ndax yow fii laay toog bandi bu bon bi sëyi woo foofa lu musul am ci askan bi doo ko fi indi fii perdi amu fi amu fi saay-saay amu fi te lépp a ngi ci yow fii laay toog waaye nag kii ci nit bii um kenn mënta nelaw ak moom fii lay fanaan xoreet xoreet bo gesto, gis ko muy xaran xarané ah man de xoma pa paa njógoon mën a tëddee xaranam yu metti ah ah fa nan fi yow nak ma ngi fi de dew ma fen caabi jaa ngi ni fi ay ca nañ do nañ ko doxale ni boy bi di nga sëyi de wa bëgg taxawal li musul am askanu Oh papa, tu ne penses pas que j'aurais dû insister pour avoir cher toog suñu appartement bi. Euh, ben Wolof Njaay dafa ni nit ki boo may jën sa su ne dina lekk dé mais nga jangal ko nan la def ba am jën sa yu ko nexé lay lekk boba te defe na booboo gën. mais ben, yow malay lay papa ni da nga commencé ma indil ay affaire de sagesse di pa njugal njugalu. yow ki duma ko ki duma ko waaye tu es trop sauvage. en fait ce que je veux expliquer c'est que ni Moi, que ni dire Cheikh Ngoko. ko taxaw nga bi pour que je confiance en soi veux en tout cas j'ai essayé et puis je faral di wax ni que je je mën amul ku mais je ne ko pas Je nga à ce que ensemble tu vois donc là dafa bëgg demal boppam et puis on ko ok hmm, en tout cas je suis tellement excitée sama crèche bi ma dans Je suis Ils yi di leen toppatoo un nab <laughs> di temps. di jàkkaarloo ak ñoom di il est rek déjà acquis. xam excité Thiam <laughs> changement il Ibnu bi ni mu j'ai rien compris man la gën entre Bambi je ne t'aime pas ak Bambi je t'aime il y a du hymne dedans. en tout cas doy na waar daal na leen ñaanal rek. xam nga la laay ragal nit ñi toog 17h jot paa bi toog ñun ñu toog imaam toog mu jékki-jékki ak nit ñi <coughs> ma un un rek est-ce qu'on peut reporter le mariage s'il vous plaît.

alhamdulilah dafa mel ni waxtu wi jot na nag. Mhm. waaw euh, Omar demal nga xool Xalil nekk na ñëw léegi. Xalil ak Faa moom tëju rek Faa daal moom sama victoire moom mënu koo gis ci biir kër gi moom ah defe nga ni li neex na ci xol waaye baax na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sang bi caam. imam na deh bayi alhamdulillah, alhamdulillah, si jàmm Alhamdulillah. mbaa yéen a si jàmm Alhamdulillah. Nengin deh. def Mana aja lu ñu def waaye yow daal sa sa wujj rek la ñuy tudd heure bu la neexee ngay ñëw sama wujj la heure bahna. Princess. ñëwee rek baax na princesse ani xale mi kau. ok xaaral ma xool laax yi fu mu waaw Nabou Gueye. yow nga bàyyi ba nit ñi toog nga doon dem liggéenti laax. waaw yow léegi mu pare la. yow Ibou lan la lan mooy sa problème. lan la noonu chéri. eh naa ko ci yàlla bu mu waxaatee chéri mu noqul ba nga dul. sa jóge nag dafa agressive mais kenn du ne. C'est qu'il est dama lay noq. eh merde Mani merde yow lan la lan c'est problème xanaa pris une décision la ma sama avis une bañ pas dire que li je t'aime tu m'aimes basta d'ici peu de temps tu seras ma femme. un ko mucc un suba ak ngo soow ya ko dak senegal wayo ni nga beugé nan so mi du nonu da ngay fat xoolal soow nàmp dafa am yoon ya ngay dé da ngay teul gauche ba ñe non la teul droite bi yow duul maa dégg kay so ya ko gëna a neex ci àddina mim rew merci. pas bébé. assistante spécialiste bi moo ma le pour ce rendez-vous le 15 du mois prochain. dans un mois Il y a de. j'avoue que yàgg na mais bon c'est pas grave. on va gérer d'accord. Mm. bébé. Mm.

xam naa kenn sangu si ñoom rek. wala sax ñoom ñaar ñëpp di sangandoo pour mën a sakkanandoo. lan ah mooy loolu dëgg koraay eh, dafa cher de. xam dinañ wàcc. amul lan ak ay xale bi ñëw la sax. bisimilah. tàggal bu baax. Iya. jubbi si sunna ñu nekk si gàtt gi mën na Wah mana man nga ne la ilaha illallah eh ay foo Kenapa sih ini? yéene yéene ah maa ndànk rek Yuk suukar yuuxu gi nga yuuxu léegi allah Nak wakir juga njuga ci am dañ maa mana? faale ma nag safoo ma faale ngeen ma jox ngeen ma sama cer. ngeen kam nenang mai tau taaw ci sama doom am doom ba di dia tuddee ñu ne xalé bi jigen la. Mhm. tudé nañ ko Fatou Bintou ndjay cham Omar cham li la def. Ali. naam. la jattal imam tour bi déggoo ko de imam déewaat ko tour bi. ah way li la wax xalé bi jigen la. Mhm. tudé nañ ko Fatou Bintou ndjay cham Omar cham li la def. Omar def nga lu rafet ma sha allah. Mana Omar ni nga ma def toroxal ma samay dikk nawle waaye tey duma jooy de mais larme sese waaye yow fi ma jaaroon yépp wax turandoo bi maa ko moom jaaraat nga wax jarul sa duma

jërë ngeen jëf maa ngi rafetlu seen teewaay yéen ñëpp waaye ñu bañ a fàtte ni am na leneen lu ñuy xaar muy sëy yi ñu war a takk imaam ah. nañ dem ci ko waajal yéen ñaar ñii dama bëggoon xam kan moo waxtaan ak ba mu nangu sëy bi. wala baam bi danaa mujjee jommal nga mujjee wiiri. man Ibou Thiam. waaw gis nga ku may jommal au contraire baam bi man maa koy jommal. <laughs> yaay jommal baam bañ yéegu ci du yaay wax waxi tëdd. Euh, lan mooy tëdd. kii xale dama yaakaar dootoo yeewul. Omar li mu

ki tay lu ko neex def mom moy baye Fat Bintou cham ah moo ñu tuddee doom de parce que dafa am dom ngénte yu mu neex def fu mu jaar yoon la tey quand même ki way lig lig lig al khair bi lèr ma dugg cour des grands tolox yeen nak lu way wax ma dugg ci eh, sa morom dafa nekk fi da nga dofal dam lo dal jéggalu ah grand sat kalmaate mais ki sa amul lu ko dal grand bakir damay eh, saaga sa mel ni dañ <laughs> grand frère Bakary les déroulé nee na ko damay saaga sax am na lu ko tegali ko léegi loo bëgg nag ma def yow ki ñëw sama néeg di jooy nee na tuddee ko fi sax muus xam nga man laa biir ma may ko bi waa double appel double appel coupeel dañ nag lii yëpp waxoon naa la ko de te ngaa gëm yàlla te xam ne li am am na ba pare. yow moom naa fekk nga da nga te seytaane am na catégorie bu ne nag bu xees bu ñuul waaye yow yaay yaay maamu seytaane yu xees yi. te ngaa takk sa man dellu rek waaw eh, leen seen kanam yi ngeen di tabax ak peinture fii man maa fi nekk bu kii tabaxee kii peinture jël leen seen kol yi ngeen dem ca jàkka ja déglu imaam say ñaar a ko yor ku góor ki ak ku jigéen ki bu ma leen ko waxaat nag kii lan la Leyla hmm? may ma fii wala mu ñàkk fay dem romb ci

tey li soxna faamu def indi jigéen ñi ci biir jàkk ji mag ak ndaw ñaar ñi war sëy sax ñëw nañ loolu nag bariwul gis ci Dakar wante boo demee ci biti foofu nga xam ne bariwuñu ay ciib-ciib ah ki ñuy maye day ñëw ku góor ki ku jigéen ki ñëw ñu dénk ko imam jerejeuf kay yow yaay ñaan ok alhamdulillah rabbil alamin biñu tolo fi nak dafa am lo xamne sariya moñu ko diggal ne nañ ko laccé si ku góor ki ak ku jigéen ki dañuy laaj si ku góor ki ndax am na ñeenti jabar walla déet déedéet musul am jabar ku jigéeni ki bàyyam ngi ñu toog dañ koy laaj ndax moom it amul kenn ku mu digaale woon ba am lu mu ci jotoon a dugal déedéet amul dara lu ko gàllankoor amul dara lu ko gàllankoor kon nak alhamdullilah rabbil alamin kon nak da ngay ñaan mom mu may la ñu khutba sëy bismillah ñu teewlu ma ngi ñaanal Omar jam bi fi wàdd say fartas yàlla sunus mohammed ci ndigalu ñaari wajur jërëjëf. alhamdulilah rabbil alamin kon bis ni tay ma sha allah. Omar Thiam may nañ ko fi fi wàdd. alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf alhamdulilah ok. maman wu. daa daa mel ni takk nañ ci kàddu kon am naa wujj. madame Thiam. félicitations. yàlla sëy bi barke. amiin yàlla wasal barke. amiin. madam Cham lay doon bam mu bari doole. Eh, boole ci mini mini madam Cham señor ngi ni tok war na la say kaddu ci néegub yalla nga nek bambi lo joy ah. Alhamdulillah rabbil alamin kon nak bu li dañuy jublu ci mbirum imnu cham ak bambi njay bismillah kuy ñaan na ñew ak kuy maye jërëjëf imam li nak moy dërëm bu kennul gal gi ndax kiy maye moy ñaan rek kon khalil kay yak sadikh ki ñaan ki maye oh ma oh, ñaanal sam bop ah. ki ñaan moy maye wa su ko defé Qui ñaan ngi ni? Qui may ngi ni su ko defee ñu jox leen rek ñu ñaan ki may maye ñu def xutba bi waaye kii doon moom yaay boy yaay nu de yaay laa dégg yaay lan waaye leen xoole sama yaay nii ah, ah yow gawel nit ñi eh mam bambi yow lañuy waxal li lu mu yow lay waxal ala juga sama dom la papa njuk eh mamadou kebe doom ah

jaxase ay mbokk jaxase ëtt bi nga bëggoon léegi da nga bëgg a jaxase jëkkër ak jabar baam bi bëgguma la bëgguma la tey bëgguma la rek may ma jàmm جبوت دمرة الله